d' accord alors ci sortie bi Ousmane ko def te rapidement Tunkara ci affaire euh, affaire Thiaroye 44. mu mel ni dañ doon wax ne position Ousmane Sonko par rapport ak France leerul mais gis nañu ne sortie bi mu def dafa mel ni andi na affirmation par rapport ak rupture bi nga xam ne mu ngi koy incarner via la France parce que nag ku wax France wax métropole wax koo xamante ne tey moom mooy premier partenaire Sénégal euh, tey euh, kàddu yu mu yëkkati à travers ci Thiaroye 44 est-ce que jàpp nga ni di ngeen jëlaat li nga xamante ne moom mooy souveraineté bi ngeen di incarner. mais absolument xam nga soxna si réew mu ne ba ci kër doomu aadama sax dafa soxla euh, indépendance xam nga man waxuma ko sax ci mbirum euh, euh, féminisme wala masculinisme mais boo xoolee tey ba ci biir kër ak ak yelleefu jigéen ñi tey dañ ko yokk xam nga suñu taamu maam yéen lan la ñu waxoon jigéen ca waañ ba jigéen lii jigéen lale jigéen moo war a fóot jigéen moo war a nàngam mais tey da ngay gis góor ñi ci biir kër yi ñuy fóot da ngay gis góor ñi ci biir kër yi ñuy togg dangay gis góor ñi ci biir kër yi ñuy jàppale soxna yi donc àdduna noonu lay évoluer je pense à un moment donné pour ñu mën a développer suñu réew il faut ñu am suñu souveraineté monétaire et il faut ñu am suñu souveraineté alimentaire et suñu souveraineté humaine parce que gis nga réew mënta dox tànk doomu aadama bi liibrul mën a defal mbiru boppam tey Sénégal ci France la ñu dépendre ci xaalis donc bu neexee France du ñu am xaalis ci France la ñu dépendre pour lekk ah du ma ne sax lekk mais maanaam bitim réew la ñu dépendre pour lekk donc bu ñu béyul ba mu doy ñun ci suñu biir réew du ñu dund at yeneen donc tey boo xoolee ñu mel ni ay Auchan ay Orange suñu société nationaux yi sax yu ci bari France moo ko moom loolu tamit naka nga ci mën a développer ab réew je pense que rupture boobu Ousmane Sonko di woote toujours rupture boobu nga xam ne moom lay waxtaanee toujours te fàttali yooyu nga xam ne moom la ñuy fàttali toujours pour wan ñu ne du ma ne France ñooy suñu euh, euh, maanaam ñooy suñu ennemi numéro un de waaye xam naa ne bokk nañu ci suñu ay noon parce que France ku ne France ne intérêt personnel France boppam rek lay doxal tey boo demee ci banqu oru France France presque il détient la troisième force mondiale de l'or tey boo ginnaaw Amérique peut-être ak Allemagne France moo ci ëpp or ci àdduna bi te France amul benn ressource naturelle ci dëkkam donc loolu tamit jarul seetaat jarul ñun tamit ñu am fulla ak fayda ñu ne li nga xam ne ñun ñoo ko moom ça revient au sénégalais li nga xam ne ñun ñooy jëflanteeg France ñu def euh, égo égo mais loolu defe naa loolu mooy li war France ci boppam xam nañ ne ñun li ñuy incarné wala li ñuy woote mooy li baax fulla ak fayda la rek ngi mel ni yow ngay jënd ka jaay nga bëgg jënd jaayaat waaye nga bëgg jënd jaay à pert yow kañ nga ciy génn balaa muy yàgg nga fayit donc je pense que le président Ousmane Sonko est constant il est toujours constant comme ñu koy waxee mi ngi ci lancé bu baax bi te gëm naa ne incha allahu rabbi yàlla dinañu may nag temps yi gars yi nee nañ dafa noppi temps waxatul. waaw yéen da ngeen koy namm nag yéen da ngeen koy namm ndax su waxul doo leen maanaam doo du ñu am contenu dañ koy namm waaye Ousmane Sonko. ku ko xam xam bi gars ñu koy xaar. mi ngi pré mi ngi mi ngi mi ngi préparé du lourd loolu rek laa la mën a wax Ousmane Sonko mi ngi préparé du lourd bis bu génnaatee. bu waxee xool yi dina sedd incha allahu rabbi. d'accord alors. Euh, fi ñuy jeexalee très rapidement euh, Tunkara muy euh, wàllum convention yi nga xamante ni fan yi yëpp juróon na coow moo xam ci presse bi wala ci ñenn influenceurs yi ba ñu arrêté woon ko te ku ne xam ne ne actuellement presse bi convention yi bokk na ci li nga xamante ne moo leen di jàppale parce que nag mënoo yor entreprise yor ay employé war leen fay donc ki nga xam ne moom mooy premier ministre bi suspendroon nañ ko ba ci li nga xam ne moom moo xew LONASE donc tey ñëpp ñu ngi taxaw di xaar pour que convention yooyu noonu ñu mun ko reprendre pour ñu mën a aider entreprise yi bien évidemment parce que xam nañ ni secteur privé bi moom mooy créer en emploi donc euh, convention yooyu bëgg naa nga ñëw si rek de façon euh, résumé ñu jeexalee ko très rapidement. waaw ah, je pense que boo xoolee côté convention yi euh, di nga gis ne liste boobu ñu joxe sax boo ko xoolee di nga gis di nga xam ne amul woon équilibre. di nga gis ne vraiment ay parparloo moo fa amoon ak euh, quelques euh, ma euh, doomu aadama yoo xam ne ku mel ni Cheikh Mbacke Gadiaga soxna si lan nga ma mën a wax ne moom lay liggéey ci àdduna bi ku mel ni Mati deux pommes et demi lu muy liggéey mujjantalam lu dul saaga ak di parparloo nga dem ci ku mel ni ñaaxarañ ñaaxarañ loolu lu muy liggéey. yu mel noonu xam nga déjà nga koy jël di fay doomu aadama yooyu ay millions euh, ci turu sénégalais yi te xam nañu ne ñooñu ah, te amuñu benn taxawaay ci Sénégal boo xam ne c'est positif je pense que loolu c'était seulement fait pour arrêter mbir yi yëpp pour arrêter hémorragie bi arrêter xaalisu réew mi ñuy sànni ba indi lépp encore comme ni ma la ko waxee ci jub-jubal jubbanti bi foofu rek laa ko jàpp man gëw ma ne gouvernement Sénégalu Macky Sall bi jóg na pour gàllankoor li nga xam ne amee na bu bu Ousmane Sonko jéggal ma safurlaay tubi layka gouvernement Sénégal bu beesu euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay bi ak bu euh, le PM Ousmane Sonko jóg na pour gàllankoor benn doomu aadama déedéet parce que ñoom c'est des démocrates déjà ay nit la ñu yoo xam ne dañu waxoon ne bu ñu ñëwee ci réew mi dañ koy jubal ba ñëpp gis ci seen bopp léegi yow mi ngi mel ni tey nga ne woon benn Ousmane Tounkara la ñu jox ay convention pour lan man ñu war maa jox ay convention ban ban structure bu légal laa teg buy wane ne man mii je suis fair et balance je équitable maanaam dama bëgg a teg jub jubal jubbanti euh, ci réew mi ba ñu may jox ay convention je pense que yooyu soxna si dañ ko war a arrêté ñu jël tey convention yooyu man ko baax jegleel journalistes yi nga xam ne pour man ils sont équilibrés ndax yow yaa ngi ni xamante wuñu mais ku la dégg fii tey question yi ngay laaj mooy question bu journaliste bu baax di laaj yow boo fi ñëwoon tey ci émission bi sa question yëpp naan waaw yaa saaga ndey diw waaw yaa sànni diw kurpeñ waaw yaa weqoon diw yooyu du journalisme ça de la manipulation xam nga donc bu dee journaliste yu mel noonu la ñuy am yoo xam ne dañuy ñëw ci tableau yi ak waa jooju sant Sow nekk fële ci journal euh, maanaam Walf Fadjri bàyyi ko fa ba léegi xaw ma ragal contrat xaw ma yu mel noonu dañ leen war a dàq génne leen ci journal ñoo yàq seen der journaliste yu baax yaa ngi fi ba léegi te convention yi war naa mën a continuer waaye ñu bon ñi ñoo tax ñu yàq tur ñu baax ñi donc tey yéen boo leen bëggee xeex dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg da ngeen war a taxaw ne nañu xoolaat journalisme bi ñu réformer waat ko jël ñi nga xam ne ñoom ñooy journaliste yu baax yi ñuy def seen liggéey mettre leen à la place qu'il faut wala bu ñu nekkee sax seen journal journal yi ñu bàyyi leen ñu continuer am seen convention yi comme la le faut yeneen ñeneen ñu jubati ah waaw waaw xoolal borom ndel boobu ah ñu mel ni ay ma jàmbal Diagne ak ñeneen ay nit yoo xam ne yàq réew mi rek moo leen fi bàyyi du ñu wax dëgg xamuñu lu ñuy waxee dëgg. doyen Madiambal tamit ah yàgg na ci métier bi de. waaw yàgg na ci métier manipulation. ah mënoo ko ci génne nag. kan nga ciy génne ma jàmbal soxna si boo nekkoon ci pays bu normal ma jàmbal jaañ li mu créé ci Sénégal yëpp ni kon toppee nañ ko lu rëy a rëy rëy ma nga ca gannaaw fële ca Rebeuss te du yàgg di nga gis ñu bari ndax ci mbirum suuf yi rek buñ ko leeralee ak mbirum wuruj wara ji ak mbirum eh, càmbar bi bu taxawee a ah, ñu bari ñiy yuuxu nii yow xam nga li ñuy yuuxu dañuy yuuxu parce que xam nañ ne y a des problèmes xam nañ ne y des dossiers qui sont ouverts donc ñoom yuuxu bi yëpp mooy pour ëllëg ak si biir bu ñu leen ne ciix dugal ci biir ñu victimiser wu. donc soxna si encore une fois euh, maa ngi lay remercier euh, comme da nga ne woon defe naa bii mooy question bu mujj bi nest je je pense bien bu ma juumul. ma bàyyi la rek hmm. comme xam naa ni yàqamti nga te wax dëgg yàlla depuis presque deux heures de temps ñu ngi la tey ci ligne bi ñu ngi lay remercier bu baax a baax xam naa ni li duuf si nag bi xajul si cin bi dañu lay libéré rek ba beneen yoon incha allah bu ko defee dinañ teel la dugg tey la yaatal bu ko defee ñu gën a waxtaan bu baax a baax parce que les questions euh, d'émigrés yi il faut ñu waxtaan seeg problème ambassade yeeg passeport yi nga xam ne peut nit ñi pour ñu renouveler dina metti lool donc merci beaucoup ma bàyyi la nga tàggatoog internet yi ba beneen yoon incha allah. voilà donc euh, soxna la maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax di la sant ci invitation bi di remercier également sa équipe technique vraiment ñi nga xam ne ay jàmbaar lañ lool ndax comme ni nga ko waxee sànq ba léegi ñu ngi def lépp lu ñu man avec les moins qui existent pour ñu man koo euh, doxal te ñu def ci nag liggéey bu jàggi dayoo. donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax di rafetlu nag seen taxawaay di leen ñaanal nag ngeen continuer euh, exister mais teg ko ci yoon ak dëgg donc di sant auditeurs u Sénégal 7 yëpp à travers le monde di leen euh, joxaat dig daje rek xam naa beneen yoon comme ni ko suñu sœur bi waxee. fekk jot bi organisé waat parce que tuuti tuuti mi ngi lay nuyu te moom xam naa ne bii paa dina dina gën a préparer affaire yi bu ko defee du ñu tardé lu bëree bëri. voilà donc tuuti aussi ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. di rafetlu vraiment moom it taxawaayam. ñoom Ismaïla ak ña day moom sonn nañ torop ak Ablaye. ah vraiment ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a waaw Ismaïla ak Ablaye yéen ñu ngi leen di remercier. toll nañ torop di remercier soxna Lalla la bu baax a baax a baax a baax. merci beaucoup Tounkara mais maa ngi préparé maa ngi préparé aussi plainte contre soxna Lalla. dafa ma ne maa yónnee ay photo pour mu tànn ci benn ma yónnee ay photo yu bari mu dem tànn beneen bu ko mu def ko ci ci ci kii bi publication